asalaamaaleykum dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen youtube bi di seen cours tv ngir jàngaa ngare ci wolof ànd ci ak Moustapha bi nag tey bu am am solo la moom itam mu aju ci wàllu jëmi doomu aadama waaye cër yi mooy body cër yi ak nan lañ ci mën a sukkandikoo pour njàng mi gën a gaaw ñu xam cër bu nekk yan verbe lay jëfandikoo ci làkk bi maanaam comme bët lan lay def loxo lan lay def tànk lan lay def bu ko defee yoon bi gën a gaaw pour nga mën a comprendre verbe yi ci anglais ak turi cër yi body body body mooy jëmm maanaam jëmm ji yëpp loolu mooy body face mooy cëlmaay mooy kanam mooy xarab-xaram mooy fi bët yi nekk mouth mouth mouth mooy gémmiñ mouth mooy gémmiñ teeth teeth ñaari ë yi lañ koy liiree foo ko mën a gis ci anglais bu ñu dendee teeth mooy ay bëñ waxuma benn ay tong tong tong mooy làmmiñ tong mooy làmmiñ hand bul wax xànd hand hand mooy loxo fi baaraam yi nekk fi ñu téye arm mooy arm arm arm bul wax arm bul wax aram arm mooy loxo li ko daggee ci cuuncu bi ba ci tikki njar finger finger finger bul wax finger finger mooy baaraam loxo two two mooy baaramu tank ok néew néew mooy we mooy we lekk legg legg mooy yeel mooy ci tank bi yeel léegi nag nañu xool verbe yi ak noo yi ni bu nekk lan lañ ci mën a am ngir mu gën a yomb si yow nga bàyyi ko xel bu baax boo ko pratique incha allah bi si njëkk mooy tong tong ban verbe lañ fi mën a am mooy làmmiñ verbe bi si njëkk am mooy tell tel mooy lan mooy wax làmmiñ mooy wax donc tel wala speak speak ba léegi mooy lan wax waaye nag jëfandikoo ko si làkk maanaam I speak English wala I speak wolof beneen bi ci amaat ci benn verbe mooy say say mooy wax boo xamante ni tim ci nettali la comme nga ne I say that man maa wax loolu wala nga ne he said that he is a good person moom nee na waa ju baax la beneen bi mooy I aay yan verbe lañ mën a am ci I mooy bët bët lan lay def bi ci njëkk mooy look lëg lan mooy lëg mooy xool jëmmi xool waxuma gis de lëg mooy xool comme nga ne look at me xool ma look beneen bi mooy see sii nag moom bokkut ak look see mooy gis maanaam gis xam nga look mooy xool rek sii nag mooy gis boo ne I mooy gis naa la boo ne I'm looking at you mooy maa ngi lay xool don't look at me bul ma xool beneen bi mooy air air air air bul wax ear wala hear air mooy nopp moom lan lañ ci mën a am mooy bi si jàkk mooy lis listing listing listin listing mooy déglu listin mooy déglu bokkut ak dégg de déglu listen to me mooy déglu ma listen to your teacher mooy déglul ki lay jàngal beneen biñ mën a am si ear muy nopp mooy hair hair maanaam xas nga si doole rek muy hair moom mooy dégg moom mooy dégg comme nga ne I heard that mooy dégg naa loolu ok have you heard that what happened ndax xam nga li xew ndax dégg nga ko ok dégg ak déglu nag bokkuñu beneen bi mooy hand xam nga am nañ ko ci gannaaw yii yëpp am nañ ko hand lan lañ ci mën a amee yan verbe lañ mën a jëlee ci hand muy loxo dañu teelu bu baax incha allah bi si njëkk mooy teg teg teg bul ko déggee ni wolof di waxee teg de naan tegal sa téléphone bi ci taabul ji déedéet teg bi mooy contraire bi teg mooy jël wolof danaan tegal angale ne angale ne teg wolof ne teg mais dañuy am contraire wolof bu ne teg mooy jëlee ci kaw jël teg ci suuf angale bu ne teg mooy jëlee ci suuf yóbbu ci kaw teg yow phone mooy jëlal sa téléphone bi beneen verbe buñ mën a amaat ci mooy pick pick pick pick mën nañ see amee yii seppi jëlee ci mbir walla for tënk mooy daal moom itam jëlee ci suuf loolu mooy pick beneen bi mooy put pët put put mooy teg gis nga moom wolof bu ne teg mooy jëlee ci kaw wàcc ci suuf anglais loolu lay wax put anglais bu ne teg mooy jëlee ci suuf yóbbu ci kaw benn bi ci mën a amaate mooy hold hold hold mooy lan ci anglais hold mooy ngëb maa ngi liiraat yi teg comme nga ne teg your phone jëlal sa téléphone pick comme nga ne pick up this mooy jëlal lii put tegal comme nga ne put your bag on the table tegal sa saak ci table ji hold on my hand mooy téel sama loxo ñu demaat ci beneen no beneen baat muy mouth mouth lan lañ mën a am ci mouth muy gémmiñ mouth bi si njëkk mooy drink drink donc dama tasaare verbe yi mais boo xoolee yu bari ñuy bokk même espace mais dama ko tasaare pour nga gën koo xam drink mooy naan ku nekk xam nga ne gémmiñ lañu ñu naane drink drink drink ok drink mooy naan ndax drink rek lañ ci mën a am déedéet boo ne I drink water mooy damay naan ndox boo ne I don't drink wine mooy duma naan sàngara beneen bi mooy eat eat eat eat eat mooy lekk eat mooy lekk donc stop eating bàyyi lekk stop drinking bàyyi naan beneen biñ mën a amee ci gémmiñ mooy laaf fii nag bàyyil xel bu baax regal bi baat bi dafa am yum génn mooy ji ecci bu fekkee ne voyelle da ko jiitu duñ ko liir fii nag duñ ko sax liire ji ecci mais af f lañ ko liir muy laaf muy reetaan laaf bu mën a doon laaf at nii mooy bul maree are you laughing at yourself ndax da ree sa bopp stop laughing bàyyil ree beneen biñ mën a amaate si gémmiñ mooy cry cry cry cry cry mooy jooy mooy contraire u laugh jooy ok ma liiraat mooy nga dégg ko drink mooy naan comme ma ne la stop drinking wine bàyyil di naan sàngara eat mooy lekk eat your food lekkal sa ñam wi laugh mooy reetaan doon laaf at mi bul maree cry mooy jooy stop crying bàyyil sa jooy yi beneen bi mooy lekk tànk wala yeel lan lañ fa mën a amee lu ñu fay gisee lekk lu ci topp mooy nii dañ ko fay am nii mooy woom wóom wóom wóom maanaam ci même format foot mooy benn tànk ndëggu benn ndëggu fiit mooy bii nii mooy ñaari tànk mooy ndëgg yu bari two mooy baramu tànk ok two mooy baaramu tànk maa ngi rat yooyu lekk nii fii two yii lan lañ fi mën a amee bi si njëkk mooy work work work al bi ola work luñ fi mën a amee mooy dox dox work dox ok work wala run run run mooy lan daw daw are you running ndax dangay daw what are you running looy daw du yemuñ ci boobu rek ak yan lañ fa mën a amee yeneen verbe mooy jump jump jump jump jump mooy jéggi walla tëb jump up mooy jéggil you jump am um, you jumping jumping mooy comme ma ne la why are you jumping in our conversation lan moo tax ngay dugg ci suñu wax bi ok mooy why are you interrupting jump jump mooy tëb walla jéggi step step step step step mooy jéego mooy booy dox sa tànk yi boo tegee tànk bi tegaat bële li nekk ci diggante bi loolu mooy jéego work run stop run jump step ok yooyu ci lan lañ ko mën a amee mooy li ko daggee ci lekk ak nii ak feet ak two dégg muy yeel woom ak dëggu tànk ak li nga xam ne mooy ay baaraami tànk kon ci yooyu lañ ko mën a amee ok maa ngi rat bi ci topp mooy work exemple ma la I work to school damay dox dem école dégg nga bu dee ni daw mane la don't run work bul daw doxal ok beneen bi des mooy ci xeen am nañ ko xam nga mais nan la ñuy waxee loxob ndeyjoor ak loxo càmmooñ bi ñu njëkkee gis nga ko mooy left hand boo xoolee sax moo nekkee ca wàllu càmmoñ muy loxo càmmoñ left mooy loxo càmmoñ left hand loxo càmmoñ beneen bi ci topp mooy right hand kon war nga xam loolu mooy ban loxo right hand right hand right hand mooy loxo ndeyjoor ok maa ngi koy liiraat left hand right hand left hand right hand come on my left kaay ci sama càmmoñ come on my right kaay ci sama ndeyjoor beneen bi mooy fingernails fingernails fingernails ok fingernails mooy baaraam mi loxo fingernails mooy baaraami loxo toenails mooy toenails mooy contraire bi mooy ok baaraami tànk yaakaar naa leer na ma liir jële ci kaw wàcc ci suuf left hand mooy loxo càmmoñ right hand mooy loxo ndeyjoor fingernails mooy baaraam yi loxo ndax boo ko xaajee baat bi finger wax nañ ko ci gannaaw mooy baaraam nails wax nañ ko ci gannaaw mooy we du firi rek de déedéet danay firi feneen fi li ñuy wax pont maanaam boo bëgg a daaj dara pont bi ngay jëfandikoo pour daaj ko mu dëgër loolu tamit nails lañ koy wax wala nails ok two mooy baaraamu tànk kon two nails mooy wey baaraam tànk ok wey baaraami tank paska baaraamu tank mooy two nils mooy we booleen boole muy two nils mooy weyi baaraami tànk ok di la fàttali rek bu fekkee abonné go te nga bëgg jàng angale ci wolof ci yoon bu gaaw te normal bul fàtte abonné te uli ba ba léegi di like vidéo yi boo seetaanee vidéo bitim boo ci gisee loo xamante ni leerul mën nga ko bind ci commentaire laajte laajte ko bu méthode bi normalul mën nga ko bind ci commentaire nga laajte ko ndax loolu mooy tax ñun ñu xam njàng mi fu muy toll ndax euh, ñiy seetaan rek ñoo ñu mën a waxal ñoom liñ bëgg donc ñun dañuy natt rek di def lu lu ko luñ bëgg a def mais duñ xam ñiñ koy defal lan lañ gën a gën a soxla ñu leen koy defal pour loolu nag ñun ñu man see am occasion mooy da ngeen di wax ci commentaire yi ne nangam lañu bëgg lii dafa def nii lii dafa def nii lii dafa def nii bu explication bi gaawee nga wax bu voix bi wàccee nga wax bu gaawee nga wax bu montage bi normalul nga wax en même temps bu njàng mi leerul tim nga wax ko ndax ñu mën koo xam Bye bye.